waaw dafa am solo rek su fekkente yàlla may la na nga dund ci lu ñëpp bokk fukki weer ak ñaar benn weer bu mujj bi nga mën a xayma la nga xam ne lii moom nga sasoon sa bopp la nga ci jot a def ak la nga ci deful donc loolu mooy illa daje tey bi ñu natt ko ci ñaari fan war a waajal ci natt boobu la nga xam ne lii sasoon nañu ko suñu bopp di ci at mi lan la ñu ci jot a def jàpp naa ne mbéy dafa ànd ak xayma mbéy dafa ànd ak xalaat mbéy dafa ànd ak nga wax ne lii nga bëgg a def lii nga bëgg a béy nii nga ko bëgg a béyee te boo ko béyee ba pare lii mooy jeexital bi donc loolu mooy ñaari fan yi nga xam ne yii jàpp nañu ne moom la war a def fii tey. yéen waxtaanee. lu ñu sasoon suñu bopp mooy nan la ñuy def ba bi nga xam ne mooy mbéy mi ñu fekk be béy mbéy bu sell yaatal mbéy mi boole ci ña nga xam ne mooy acteurs yëpp ba ñëpp daje ci lii la ñu war a def beneen natt bi nga xam ne bii jàpp nañu ne war nañu ko def mooy fexe ba li nga xam ne lii sasoon nañu ko suñu bopp ci diggante béy ak njaay ak jënd fu ñu ci toll beneen natt bi nga xam ne bi jàpp nañu ne war nañu ko génne tey mooy la nga xam ne lii waxtaan nañu ko ni lii la ñu war a ànd nii la ñu war a jënd nii la ñu war a jaayee te loolu nekk li nga xam ne lii ñëpp ñoo koy bokk ci ñaay bi yëpp loolu aussi ñu waxtaan ak jàpp naa ne loolu mooy ñetti yi nga xam ne yi bëgg nañu ko xayma tey seet lan fan la ñu ci toll 2016 2017 ñu ngi koy waajal fi mu ne dem nañu ci tool yi juy production yi commencé nañu production bi am na ña nga xam ne ñi balaa yàgg euh, ñu ñoral mais am na ñu ñoral ici lu tolloo ay benn weer te loolu mooy li nga xam ne lii moom la ñu bëgg a waxtaane bu fekkente àgg nañu suba ci jàmm loolu la ñu bëgg a waxtaane nan la ñuy tëral mbéy moom ci at 2016 2017 euh, bu ngeen lee liggéeyee at faaw moom ay performance faaw yi tamit moom ay jafe-jafe lan la ñu mën a tënk ci ci loolu yan yan performance ngeen réaliser ak ci yan secteur waaw li ñu mën a réaliser ci ci secteur yëpp mooy ne jàpp nañu ne li ñu sasoon suñu bopp bu dee fukk la àgg nañu fukk ak benn loolu performance la yokkute la beneen bi mooy la nga xam ne li loolu la ñu waxoon sénégalais ji ci ci qualité ak ci quantité mën nañu wax ne yëpp a na la nga xam ne lii mooy jafe-jafe yi rek yi nga xam ne gis nañu ne ay jafe-jafe la mooy ne addina bi moo toll foofu li ñuy wax changement climatique léeg-léeg nga sax sa bopp ci benn hectare fukki tonne nga am fa juróom-ñeenti tonne donc loolu ay jafe-jafe la beneen bi nga xam ne bi gis nañu ne jafe-jafe la mooy njaay mi ci addina bi ni mu toll nii concurrence bi tar na taraay boo xam ne bi jàpp nañu ne loolu aussi ay jafe-jafe la leneen li aussi mooy li ñu sas suñu bopp dafa am la nga xam ne li ñun ñoo koy def am la nga xam ne lii partenaire ñoo koy def mais am la nga xam ne partenaire état bi ñoo koy def loolu yëpp ko yëmale mënuñu wax ni fii la ñu ci tollagum mais bala atelier bi jeex daañu mën a wax ni lii lañu ñu jot a defagum. président défi production mbay lu doy euh, mel na ne egg ngeen si waaye lu tax soble rek pombiteer rek lu ñu aju di jafe ba léegi. noo jafewul pour man jafewul ndax ba léegi amul benn mbey ba nga xam ne bi bi lañ koy béy ci réew mi mu jafe. kilo pombiteer euh, juróom-ñett fukki dërëm jafewul. déet jafewul boo xaymaa la nga xam ne lii foofu lay pombiteer di am juróom-ñett fukk fay pombiteer di am juróom-ñett fukk bu pombiteer mbéy mi jeexee ba ñu jéggaani ni pombiteer bitim réew foofu lay àgg juróom-ñett fukk kon ñun mënuñu wax ne jafe na dañuy jàpp ne yomb na ndax mu ngi ñëw ci ñun ñeen fukk be juróom fukk ci marché bi yëpp saa yi ñu ko amee loolu nag dafa am lu mu laaj xam nga autosuffisance du béy autosuffisance béy denc la fekk àgguguñu li ñuy béy ñu mën ko denc téye ko ba ñu àgga ci jëfandikoo ko ñu mën koo jëfandikoo loolu day ñu yóbbu ci li muy jafe léeg di yomba léeg-léeg mais li ñu jàpp rek li ñu engagement bi ñu jëloon président de la république dafa demoon journée de oignon mu ne soxla na trois cent cinquante mille ton à deux mille dix sept ñun deux mille seize jóg nañu ko trois cent soixante sept mille tonnes. kon loolu autosuffisance bi xayma nañu li ñu sasoon aggana ganam mais jafe-jafe bi mooy fii ci àddina bi foo dem dañuy béy di denc comme la ñu soxla la ñuy jëfandikoo la ñu soxla wul denc ak ba heure bu ñu ko soxlaa ñu jëfandikoo suñu bëggee autosuffisance bi mën a nekk nga xam ne dootu kenn dootu ci waxati béykat yi béy nañu béy nañu xalit nañu wuti ay dencukaay yu méngoo ak denc la nga xam ne lii du ay fan du ñaari fan du ñetti fan waaye ay weer la su ko defee loolu moom dina féete gannaaw waaw am nañu ay magasin mais xam nga magasin du organisation paysan yi moo koy def bokk na ci ñi koy xalaat mais il faut mu am gunge état ak gunge yeneen partenaires ya nga xam ne yi seen xam dafa màcc jëlee ci ay magasin loolu nag gis nañu ne am nañu magasin macha allah état bi góorgóorlu na ci bu baax a baax waaye ba léegi doyagul ndax fekk amuñu ay sambur foire yoo xam ne da nga ci denc ci ñaari weer ba ci at mooy ne affaire bi doyagul sakk daal day mën a denc ay weer denc ay at waaye sakk buy denc ay weer yu gàtt ak ay fan day tax rek saa yu manqué manqué manqué amee mu feeñ ci njaboot gi. waaw jàpp naa yokk moom Euh, comme instance euh, de régulation des marchés mu ngi fi a ah, ña nga xam ne mooy kuréelu béykat yi ñu ngi fi kuréel yiy lekk ñu ngi fi kuréel yiy jënd ñu ngi fi jàpp naa ne yooyu waxtaan la rek bu ñu àggee ci waxtaan yi daa yi daañu am ku leen fa teewal yi daañu am ku leen fa yi daañu am ku leen fa état bi dina ñëw am ku ko fa teewal moo tax ma jàpp ne loolu ay jafe-jafe jafe-jafe yi daal nekkul foofu tey. Euh, waaw waaw daañu ko àgg incha allah parce que la ñu doon def pour àgg fa def nañu jël jël nañu jiw bi jiw bi am na manqué wul béykat yi dem nañu tool yi ñi lay état bi li mu leen doon gunge gunge na leen ko béy teg ci dara loolu li muy tekki mooy ne daañu fa àgg ren incha allah. ay Yémen. voilà vous êtes euh, là pour euh, faire euh, l'évaluation de vos activités de l'année 2016. et qu'est-ce qu'on peut retenir globalement. Euh, ce que nous pouvons retenir d'abord bilan. Euh, L'atelier bilan pour l'association des juniors maraîchers des Niayes, c'est d'abord de faire la, euh, le bilan de la production, c'est faire le bilan de la commercialisation, c'est faire aussi le bilan de l'organisation pour pouvoir produire et pour pouvoir commercialiser. Et nous attendons des résultats. Les résultats, c'est que quand le, on va finir l'atelier bilan, aujourd'hui, donc, les perspectives vont être dégagées. le bilan, les contraintes et les difficultés vont être dégagées et les solutions et recommandations vont être formulées, aussi bien à l'égard de nos organisations comme à l'égard de l'État et de nos partenaires. Euh, vous allez débattre sur quels axes euh, pour euh, l'évaluation de cette année une campagne maraîchère, il faut partir d'abord depuis l'acquisition des semences, de la production, sur l'irrigation, sur la protection phytosanitaire, Donc tous les aspects de production sur l'irrigation, comment les producteurs ont fait pour pouvoir trouver de l'eau, et s'ils ont trouvé de l'eau, quel matériel ils ont utilisé, parce qu'aujourd'hui il a beaucoup de systèmes modernes d'irrigation. Est-ce qu'aujourd'hui le système d'irrigation utilisé par les producteurs euh, de l'eau? Est-ce que le système utilisé par les producteurs, c'est un système efficient pour quand même Les engrais, et les matières organiques sont disponibles pour permettre aux producteurs d'avoir donc tous ces intrants les intrants sont disponibles, est-ce qu'ils ne sont pas chers Donc tous ces aspects vont être revus aujourd'hui et à quel, à, on a travaillé avec quels partenaires Partenaires financiers, partenaires fournisseurs d'intrants, partenaires aussi de commercialisation, donc les commerçants. Donc tout ceci, on va revenir là-dessus pour pouvoir dire, OK, sur le plan de la commercialisation, nous avons eu telle difficulté avec tel euh, commerçant ou nous avons telle difficulté pour le stockage, qu'on vient de le dire le président euh, de l'association. Donc tous ces aspects vont être revus en, plénière avec les participants aujourd'hui, qui sont des gens non seulement membres de l'association des, euh, de, des unions maraîchères de Niaï, mais aussi qui sont des partenaires qui sont dans la filière ou dans les filières horticoles, dans la zone des de la

qu'aujourd'hui, donc, nous avons pu, sur ce plan, relever le défi donc, de la quantité ou bien du volume d'oignons qu'on attendait pour l'année 2015-2016. Mais aussi, l'autre défi qu'on a pu relever, c'est qu'aujourd'hui, avec l'appui euh, de l'État à travers donc l'agence de régulation des marchés ARM, nous avons pu quand même instaurer une concertation entre les acteurs professionnels de l'horticulture, ce chaque fois de faire un gel sur l'importation de l'oignon, un gel sur l'importation de la pomme de terre, un gel sur l'importation de la carotte, Ce qui, ensemble, a fait que les producteurs ont pu améliorer les revenus et aujourd'hui, on peut dire qu'on a participé, contribué non seulement à l'équilibre de la balance commerciale, mais aussi contribué à l'amélioration des revenus paysans. a eu de contraintes majeures oui, il y a des contraintes majeures parce que jusqu'à présent, dans la zone d'Egna, il faut noter que le problème majeur que nous avons aujourd'hui, c'est la sécurité de nos terres, Aujourd'hui, les terres sont agressées par l'urbanisation, des villes, mais aussi par euh, l'utilisation de ces terres par des agrobusiness, mais aussi les industries qui sont dans la zone des Niaï ne permettent pas aujourd'hui donc de garder les terres et de pouvoir assurer la production d'une manière durable. Ça, c'est des défis qu'il faut vraiment relever. L'autre défi qu'il faut relever, comme nous produisons donc euh, une quantité assez importante, il faut arriver à un moment donné de pouvoir extraire de cette production et, et le stocker dans des magasins ou bien dans des chambres froides pour qu'au moment où on n'aura plus de production au niveau local, qu'on puisse les sortir et réguler le marché. Ça aussi, ça pourrait contribuer donc euh, non seulement à l'atteinte de, de, la sécurité alimentaire, mais aussi à euh, l'amélioration des revenus. man chef de réseau CNCH réseau ouest réseau ouest mi ngi commencé Thiès ba Louga donc tout ce qui est aspect bu ñuy wax horticulture Sénégal c'est la zone des Niayes moo tax bon ñun on a structuré ñun banque boo xam ne dañuy jóg pour jàppale mbay mi ak sàmm bi ak napp bi donc moo tax suñ structuration dañuy jël réseau ouest donc man maay tey représentant wu CNCA représentant nekk chef de réseau ouest voilà. ci lan la mën a jàpp ci li nga xamante ne ñoom euh, wax nañ leen ko ci wàllu partenariat bi dox ci seen diggante. waaw partenariat comme ni ma ko waxee partenariat bi mu ngi si ñun comme ñun dañuy suñu liggéey mooy financer mbay mi ñoom aussi seen liggéey mooy jàppale baykat yi et c'est naturellement ñun dañu war a am liggéey en fait partenariat loolu moo sëmb en fait euh, chaque année suñu dem di uti semence di ko uti semence pomme de terre surtout France lañ koy jëlee du ñu am moyen yooyu day ñëw si banque bi bu ñëwee aussi banque bi jàppale leen. bu leen jàppalee ñu jox leen en fait des garanties c'est-à-dire crédit documentaire ñu dem jëli semence bi indi ko béykat yi su béykat yi fayee ñoom ñu ñëw fay ñu donc chaque année depuis pratiquement cinq ans chaque année dañ koy def ren rek boo moo ñu dem jëli ko suñ ko jëlee jox ko producteur producteur bu ñu fayee ñoom ñu ñëw fay au delà même de AYUMEN si en tant que structure faîtière am na ay seen membres yi ren boo xoolee si zone bi ñun def nañ cinq cent cinquante millions pour rien Euh, euh, semence de qualité ak produit sanitaire donc c' est pour vous dire que ne ñun CNCRA vraiment ñu ngi lëkkoog ak ay AYUMEN ak tous les producteurs de la zone des Niayes pour que vraiment mission yéen a assigné ñu mën ko am si si si si jàmm.